bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokk judi di bokki taalibe yi ñu ngi fii ci kër cheikhul xadim ci kër cheikh Mouhamadou Mountakha ci ndigalam ñëw fi ngir jot leen ay kàddu yu ndigal yu bàyyi ko ci moom ñu ñaanal sëriñ bi nag mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li mu bëgg liggéey sëriñ Tuubaa lépp mu def ko ni mu ko bëggee ndigal li nag mi ngi ko jëmale ci waa Tuubaa ci kanam ci njiitalu sëriñ Abibu Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne mooy seen jëruñ sëriñ bi woolu ko léegi ba mu ñëw mu yëkkati kàddu cant ak ngërëm teg ko ci loxo xam ne ko noo ko jàll ci mboolem. mbooloo mi ak mbooloo mi ñu ciy dugal seen alal ñëpp ne ko maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax na ma leen ko waxee woon ca tàmbali ba ba nëgë ni waxtu ne loolu laa gis mooy neewoon naa leen amul menn mbooloo moo xam ne ëpp naa ci mu yaakaar seen mbooloo mi yaakaar jooju nag nee na saa su ma xëyee day gis du ko gën a firndeel ci loolu nag xam na ne am murid du wàcc waaye waxtu ne yéen a ngi ci ndigal waxtu ne itam yéen a ngi gàttoon ndigalu sëriñ bi. ndax lii nga xam ne euh, mbas la moo xam ne suñu borom moo ko fa wàcce te naka jekk mas jug ci àdduna di am ci jamono yonent yi ba na ci jamono sëriñ bi peste ba kon loolu yàgg ci àdduna la ba suñu borom mi ko fi indi te ne ko sëriñ bi waxoon rek mbindeefum yàlla la moo xam ne fu mu ko yebal mu dem fa waaye waxtu ko jeexalee mu jeex nee bi mu agsee itam ba mu yëkkati kàddu yi ndigalam ak lam ci jëf gis na nga na ngeen ko gàttaloo ci ndigal la ndax li ngeen ci def mën na juróom fukki million wala lu ko ëpp lépp ngir dëggale ko ndigalu sëriñ bi ak baatu sëriñ bi nee na loola nag moo tax mi ngi leen ci sant bu baax ci iweesu yëpp nag di ngeen def ci dëkk bi ndax loolu lépp nee na lu ko waroon la muy lay jëm ci wàllu forage yi nga xam lu ci paan lu ngeen ci man da ngeen ko gàttoon def ko tàmbalee ko ci màggal Tuubaa gi ba ci fan yi bi amaatee jafe jënd ay pompe yu bari defaat ko ci ak lépp lu jëm ci li leeral dëkk bi ku romb ci mbedd yi xam ne eh, seen jëf feeñ na fi neen loolu lépp nag ki ngeen koy jëfal mu sëriñ Touba teg na ci bëtam kon mu ngi leen sant bu baax di leen gërëm tey gën a dal xel ci liggéey bi ndigal li nga xam ne joxaat na leen ko it mooy fii wér di gi tolloo xam ngeen ne dafay yokk ndax jeexagut yéeg ngeen ne hôpital yi ne ci biir dëkk bi am na ci yoo xam ne fees na ba am na ci ñoo xam ne ci biir kër yi lañ leen dugal Euh, téye leen fa buñ leen téye ci biir kër yi nag te amuñ dund bu leen fa fekk dana metti ci ñoom ndax boobaa euh, falyabudu rabba haazal bayt allazi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf bala ngaa mën a jàmm yàlla sax faw sa biir dara da kon nag sëriñ bi xam ne loolu jamono ji xat na na mu bëggoon a yëkkati ci euh, alalam yëkkati ko def ko ci ngir xam ne képp ku yewoo ci dëkk bi rek boo amee gàllankoor war nga nga ci xat-xat lépp moom la war noonu la ko yéene ginnaaw bi nag mu xalaat ne seen mbooloo mii kat alali Serigne Touba jëfi Serigne Touba itam moo tax mu waroo Serigne Abibou bi mu dikkee itam mu ànd rek ñi ko seqal di Serigne Abdoulaye Mbacké ak Serigne Abdou Fatah Gueye ko jiite ak Serigne Fallou Ndiaye ak Cheikh Mouhamadou Mourtada mi di doomam ak mboolem ñi fekk. sëriñ bi joxaat ko ndigal ne ko ñooñu nga xam ne ñooñu leen tey ci biir kër yi laa bëgg la aju ci seenu dund ak la leen di war ba tax li nga xam ne wàllu kër docteur sant nañ leen ko ñu mën koo def mooy bañ génn ci biir kër yi ngir di wàll ñeneen ñi sëriñ bi jox leen ci ñoom itam ñu ànd ci mbégte ngir xam ne li ñuy def lépp dañuy dàkk waaye nag li jógee ci sëriñ bi mu santa leen ko boppam mooy la gën ndax ndigal kat li muy baax baax la ci ëpp solo mooy ñu sant la ko moo gën nga di ko laaj. lii nag ndigalul leen sëriñ bi sant kon mi ngi leen di gërëm leen ñaanal bu baax ni ngeen yàgg jëfee ndigal yi ko jëkkee rek ndigal lii itam ngeen yàgg koo jëfee noonu taalib yi nga xam ne ñoo ci dugal seen alal itam sëriñ bi ngeen di sant ngir xam ne ku ci jëf sa ku ci ku sab dërëm dem àgg na ci Sëriñ Tuubaa ndax eh, li ngeen di laaj ñépp teg nañ seen bët ci fi ngeen koy def moo tax xelum xolub taalib yëpp dal ci moo tax ñëpp itam sawar ci jëf ci ngir xam ne kuy jëf boo soñu mu àgg bi kon nag yàlla yàlla saxal leen ci bu baax li ci des mooy di soññ nit ñi rek ni ko sëriñ bi santaane eh, bëggoon na ci sax yëkkati ay kàddu waaye mu ne naa ko soññaat nit ñi ñu xam ne itam ndigal yi nga xam ne santaane na ko eh, ba joxe ci ndigal ñu di ko wattandiku ci biir jullikaay yi ndax eh, kon dem nañ ba ñëpp yéene woon nañ bëgg ñu ubbi ko ba yàlla def ñu ubbi ko nee na bu soñoon itam buñ ko ubbee itam nit ñi sàmmonteeg li nga xam mooy tax wér gu di wàlle waaye nee ni ñu koy sàmmonte ci biir jàkk yi ñu ne ci biir marché yi nee na ñooñu itam nañ xam ne eh, liggéey dafa mënta ñàkk ndax jàmm yàlla bokk ñu ne ci biir marché yi sàmmoon sàmmonteeg li nga xam ne ñu yor wàllu wér gu yaram ñu ngi leen koy wax ngir bëgg wér di gi bañ ndax képp koo xam ne wàll nga ko sa mbokk tey ko kat na nga xam loolu bu rëy ji kon loolu itam nañ nañ koy wattandiku ci marché yi di ko wattandiku ci biir kër yi bu ñu ko defee rek yàlla mën a cee def tawféex euh, te xam ne fii ci dëkk bi euh, taalibe yi sëriñ bu soñoon ñu aarutu sàmm ndax xam ne seenu njàmbar xam seen positif ndax lu fi ne rek seen postef ak seen jom ak seen seen yitte moo ko fi def kon nag euh, mi ngi leen sant leen gërëm di leen ñaa la te xam ne ni mu ko waxee woon rek lépp lu fi mat fàggu rek sëriñ Tuubaa fàggu na ko lépp lu fi mat a ñaan ci dëkk bi it sëriñ Tuubaa ñaan na ko ku gis li fi xew lépp ni muy demee lu ci ne da nga xam ne ñaanu Sëriñ Tuubaa jiitu na ca mm. ba tax mu woyu fi ni ndax euh, boo demee ci xaddis yi dañuy wax ne sarax mën naa bañ a fekk waaye waaye dana woyofal mm. waaye dëkk bi itam ku gis jàngoro ji mm. xam dëkk bi ni mu bindoo da nga xam ne ñaanu sëñ yi moo ci tàbbi waaye kon nëgë ni da nga fekk ay bakkan yu bari ci kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi lay nuyu ci Abibu mi. di fam nuyoo bi ak siyaare bi di ko teg ci sa loxo nga jàllaleel ko ci kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko ak wér te àggaleel ko ay yéeneem ak i naalam ak ak i mébétam ak bëggam ci liggéeyal Sëñ Tuubaa lépp yàlla na ko suñu borom àggaleel ni mu ko bëggee te ànd ko moom ci bakki Sëñ Tuubaa di sant bu baax a baax nag ci ndigal li nga xam ne jot man ko mu jóge ci moom jaar ci kii ak mbooloom Touba ci kanam di Serigne Habib bi Serigne Habib wax ne mi ngi gën a sant sëñ Touba moom mbooloo mi bi leen sëñ Touba yëgee ba woo leen di leen liggéeyloo ndax li li ñu ko wax léegi rek dañ doon dàkk waaye lii nag day mel ni ak bëgg boppam gu mu yëkkatil boppam waxal na ko boppam la kon liñ doon def di dàkk lépp tey day mel ni jam nan wax ji it du weesu rek samih naa wa atax na dégg nañ ko te fas nañ ko yéene jëfee ni mu ko waxee ni leen ci bëggee te ni leen ko fas yéenee jëfe incha allah ni nga ko bëggee ndax dafa mel ne dañ doon ndàkk tey nag lii mooy sa bëgg te sa bëgg dong lan bëggoon a xam ba def ko di wax ne nun taalibe yi nan gën a takku ci sàggal sëriñ bi nag ndax sëriñ bi sàggu lislaam la te sàggal na lislaam ndax bi jafe-jafe amee la cay wàllu lislaam wàllu sëriñ jox na ko ko dafa ma sa wax ne nañ nañ ko doxali nii ngir bëgg mu woyof na mu waxee ñu koy doxalee ba mu demee ba gis ne war naa gën a yaatu gën na koo yaatal bi mu ko yaatalee nag sart yi mu ci teg nan ko ci jàppale defee ko nam nu ko diggalee ndax suñu njariñ jàpp tax ndax kat tawat ji nun yaakaaruñ ci bopp lii ñuy diggal sëñ Tuubaa lañu yaakaar mu musal nu ci ginnaaw sëñ Tuubaa lañu yaakaar mu musal nu fi te mooy sëñ moo fi nekk sëñ Tuubaa nag kàddu yam nu wax ne def leen ko nan ko def ndax bu ñu ko defee dana mucc kon lu mu nu ci diggal nan ko def ndax lépp loole mooy suñu njariñu tey mooy suñu njariñu ëllëg moo nu mën a fegal itam looy tawat jii jëfe sa ndigal jëfe ndigalu sëñ tubaa képp moo mën a tax tawat ji du lor noonu te yaay sëñ tubaa kon li ñu fas yéene mooy ndigal loolu na ñun ñëpp ni ko sëñ Bassirou waxee jottali ko nan ko dégge noonu te fase ko ni te defee ko noon yi ndax ci la suñ njariñ nekk ci la suñ njariñ tey nekk suñ suñ njariñu ëllëg nekk te moo nuy musal topp ndigalu sëñ bi moo nu mën a musal kon ñu ngi sant bu baax tey gërëm tey ñaan taxawaay bi yàgg lool ci tuur sëñ Abibu ak ci tuur waa Touba ci kanam gépp ñu ngi lay sant te di la ñaanal tey gën a ñaan bu baax a baax lii nga xam ne euh, digal nga nu ko nga gën ñoo ñaanal ba waxtu wu ne saa su jugee jëm ci noonu rek fekk na jekk nañ ci def ko defe ko na nga ko bëggee te dajitee si ngërëm jërëjëf Mbacke tolluwaay bii ñu toll ak li ñu ci dox ak li ñu ci weesu daal suñu xel bu baax ci li mu jëm daal ndax lépp sëñ bi noppi na ci fàggu loonu lépp lu si ne dafay fekk na nag la mu fàggu li mu fàggu ne il faut que lu ñu def dañuy dox bàgg ci rek ni jëti cët waaye faggu lu mat a faggu faggu kon loolu ci loolu nag am na yëqin ci tolluwaay bii ne noom ci yeesal suñu cant cant gu rëy si yeesal suñu jaayante di feddi suñu laxasaay di di di di di di santa di sant di di am mbégte mu ma am. ci mm-hmm. tolluwaay bi. Mm-hmm. ndax xam naa ne nii nii nii rek lu ci ne. suñu tool noppi na ci. waaye lu ci ne dañuy dox ba ak ci fii lu toll nag. Mm-hmm. alhamdulilah. mën nañ cee dolli ko yaakaar. mën nañ cee dolliku yaqin mm-hmm. mën nañ cee dolliku lépp ah. nga xam ne sëñ fàggu ñu lépp mm-hmm. waaye tolluwaay bii leeral feeñal lépp lépp mooma doon lu ci dara mm-hmm. lu ci ne wommat la boo xam ne dañuy lu ci ne lu a romb dañ koy romb lu war a àgg nu seet dégg ko ñu ko war a déggee foofu rek lañ toll lépp mooma waaw kon nag li ci li ci kanam lépp dañu gën a fedd suñu ndax gën koo jox suñu lépp gën ko nekkal ndax nekkal ko mooy nekkal yàlla xarfan bi xarfan mm-hmm. nekkal ko nga nekkal yàlla sëñ mm-hmm. bi nekkul woon ci dara lu borom ci borom rek la nekkoon déglu yonent bi ci mm-hmm. kon nan ko nekkal buñ ko nekkalee rek la ci lépp suñu yoon nekku ci peut-être fàggu fàggul nañu ko waaye dan dan dana taw bi dolli ko ci noonu nag ak ndam yu ay ay ndam yu nuy yu ci moom. Mm-hmm. loolu rek moo ci moo moo moo ne ci kanam. alhamdulilah. war nañu suñu tubaab du sa yaakaar mukk. dama sot sa yaakaar sëriñ tubaab. waaw dama sa yàlla bu yàlla sa ba yàlla nga àgg naa daal bi jaayi xayri ma nabaat